internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañ leen bu baax a baax yéen ñi seetaan émission seen cas ñu ngi fii ci si Sicap Liberté ak coow lu dox ci diggante soxna si ak euh, ki nga xam ne moom mooy famille bu Zahra Iyane Thiam fii ñu nekk foog naa ne ñu bari xam nañ ko ñu jël ko rek mu dellu si waat ci jafe-jafe yi nga xam ne daal koy am ñu ngi lay nuyu. bonjour madame. voilà je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez pour parler de cette histoire qui date de sept ans de procédure. Vous vous présentez d'abord. Je me présente, je suis Khadija Tounian, fille de Alun Aïderania, propriétaire de cette villa-là. c'est lui qui a construit cette villa. L'état de droit réel est là. Euh, je, préfère le français parce que moom ci laay gën a sandi waaw mais bu bëggee na waaw d'accord bu ma ma làkk wolof euh, d'accord donc man na Khadija Tounian doomu Alioune Aïdara Niang bi moom kër gi suñu ginnaaw nii voilà donc man maay caatam ci deuxième femme Euh, ci état de droit réel bi sama tur mi ngi ci suñu suñu kër la ñoo ko moom. depuis kañ ngeen moom kër kër gi ñoo ko moom depuis toujours musul changé tur. lan moo tax dëkkoo leen fi gaañu bàyyi ñu kër gi. Euh, Ahmed Iyane Thiam jaay kër gi sama yaay ak sama yeneen frère mais jaay bi jaarul yoon parce que déjà c'est une vente sous seing privé en termes juridiques xëy na juge nañ xam ak juriste yi dinañ xam mooy lan. Il n'a jamais muté la maison au nom, à son nom. Man, je suis héritière, j'ai jamais eu de part dans l'héritage. J'ai attaqué le dossier, j'ai cassé la vente de la grande instance à la Cour, cour suprême. am victoire euh, référé sur difficulté ñu ñaan délai référé ñu may leen dix mois pour quitter les lieux parce que la décision dit la décision dit que Ahmed Iyane Thiam Ahmed Iyane Thiam est occupant sans droit ni titre kayit gaa ngi nii yaa ngi jàkkaarloog moom le tribunal a ordonné son expulsion tant de sa personne de ses biens et de tout occupant de son chef voilà donc c'est une décision du tribunal de la grande instance confirmée par la cour d'appel par la cour ñu indi huissier pour génne leen ñu def référé sur difficulté ñu dem référé sur difficulté ordonnance génn mi ngi nii bu génne seen expulsion ne leen may nañ leen délai dix mois pour libérer les lieux l'ordonnance est là ils avaient dix mois pour quitter la maison à compter à, à compter du 1er octobre 2019 au, au mois d'août 2020 donc délai ba leen tribunal mayoon muy fukki weer yi ñu fi waroon toog pour génn ci kër gi ramasser seeni bagage passé na lan moo ko tardeel lan moo ko tardeel ci diggante bi jéem nañu négocier à l'amiable négocier comment lan négocier pour pour pour ñu fay fay fay pour ñu fay ma sama quote-part parce que je suis l'héritière qui n'a pas eu de part donc ma ñu négocier Ousmane Seye Zahra Iyane Thiam ak man donc ça s'est fait à trois mais ils n'ont pas respecté leur part du protocole j'ai demandé une une une annulation du protocole j'ai demandé carrément une annulation du protocole am na lu ñu ma avance am na lu ñu ma avanceul quand tu décides de de de signer quelque chose avec quelqu'un tu es censé le compte am na lu ñu ma avance mais le, du fait que ils n'ont pas respecté on, on peut demander l'annulation on a demandé l'annulation au niveau de la cour d'appel le problème c'est que Zahra Iyane Thiam moo wax ma toog ci téléphone mu toog bureau Ousmane Seye mu ne du fay lan moo tax mu ne du fay nee na du fay parce que même bu fayee turam du nekk ci kër gi son problème c'est qu'elle veut que la maison soit à leur nom mais ce n'est pas possible pour que la maison soit à leur nom il faut qu'ils rachètent la maison léegi ils l'ont pas racheté elle veut pas payer elle veut pas payer sa part du protocole man je suis euh, euh, donc madame ça fait que ñu ngi téye sama kër téye sama xaalis fayuñu ma saisir sama droit yëpp li waral nag sama taxawaay fii tey mooy dañ ma génne fan lañ la génnee. Euh, Zac Mbao cité Kalia Almadies 2. dama fa loué woon wala. dama fa woon toog am ay retard de loyer durant les sept ans de procédure fu ma dëkk ñu génne ma dund naa ci lu ne et pourtant j'avais des victoires mais j'ai laissé le droit faire son travail tant que le dossier était dans les mains du tribunal j'ai laissé faire. mais ba décision yëpp génnee ba nga xam ni am naa euh, victoire ba cour suprême ba am ordonnance avec délai je n'ai plus à hésiter bu ma amul fu ma dëkk sama kër baay laay ñëw ñoom amuñu kayit amuñu kayit ils sont occupants sans droit ni titre amul benn kayit bu sant Thiam dilatoire la ñuy def actuellement au niveau de la cour d'appel parce que c'est leur façon de faire Zahra durant toutes les sept ans de procédure avocat bu ma am mu jaar ci suuf corrompre la huissier bu ma am mu jaar ci suuf jënd la je me suis bagarrée comme une lionne pour gagner ces victoires là jusqu'à la cour suprême ba am sama ordonnance d'expulsion ordonnance d'expulsion nag bu la ko tribunal joxe après avoir terminé tous les toutes les les instances du Sénégal bu ñu la joxee ordonnance ba délai bi passé sa nekk ci kër gi waratul nekk parce que waxuma ko binduma ko tribunal la ko bind donc la c'est un un bras de fer avec le tribunal maa ngi nii nag ci kanamu kër gi tey parce que dañ ma génne ak samay bagages dañ ma génne maa ngi nii ay doom yu ndaw laa du ma dëkk ci mbedd mi te sama kër baay nekk fi lan nga compté def tey. non non je suis venue pour rentrer dans mes dans mon droit. waaw mais bu ñu ñëwee on on on vient de fermer la. j'ai commencé à rentrer les affaires benn jeune je ne sais pas qui il est ñëw fermer buntu bi. vous avez des bagages dans la maison. j'ai commencé à faire rentrer mes bagages il a fermé la porte. voilà donc li des ci bagages yi moo nekk nii ci mbedd mi voilà donc c'est ce que je voulais que vous montrez que ñu xam ko Sénégal yëpp xam ko ñëpp xam ko. mais dara teewu leen ci kër gi lu dul ay ay jikko wëyu ak ak def ay jëfi bandek ay je suis lié je suis là mais les décisions de justice les ont expulsés depuis deux ans depuis deux ans donc j'ai été assez patiente j'ai été assez patiente j'ai supporté j'ai attendu mais dama sës fii sama kër baay la état de droit réel baa ngi nii man nag koo xam ne occupant sans droit ni tiit nga dooma ëpp droit ci sama droit doo ma ëpp droit ci sama droit li ñuy def li ñuy def nii teguñu ko fenn. est-ce que jéem nga entrer waat en contact avec euh, l'avocat dont vous avez cité tout à l'heure maître Seye. maître Seye je n'ai rien à lui dire maître Seye déjà du nit ku jub maître xam na ma bu baax maître Seye je n'ai rien à lui dire parce que fu man man je ce sont mes décisions qui parlent madame. Même durant toute la procédure, ce sont mes décisions qui m'ont défendue et qui m'ont protégée. donc man je parle avec mes décision de justice justice ko bind bindu ma ko ma paate bind ko ma ma demba bind ko kër gi moomuñu ko nañu génn génn nañ leen amatuñu droit nekk fi ya y a deux ans que leur ordonnance a échu nañu génn kër jàmbur man ñëw ma sàcc ñëw ma jëlee fu jàmbur sama kër bàyyi laa ñëw fëgg parce que xamatuma fu ma jëm dañ ma génne c'est ça le problème voilà donc dañuy làqatu durant toute la procédure j'en ai jamais parlé Mais il est temps que le Sénégal soit au courant de leur dilatoire, de leur comportement, de, de, de, de je quoi. Il faut nit ñi yëg ko il faut Sénégal yëg ko ñëpp yëg na ci président Macky Sall jot man loolu laa bëgg mu xam kan mooy Zahra Thiam et de quoi il capable parce que day def ci suuf di def ay yëfi bànn yëfi wëyu di jënd ay huissier huissier bu ma am mu jaar ci ginnaaw jënd ko avocat bu ma am mu am jaar ci ginnaaw jënd ko Zahra xam na moom bu baax toog nañ à trois reprises table de négociation xam na ma bu baax nañu génn suñu kër amuñu pour nekk fi yéen ay occupants sans droit ngeen sans droit ni titre c'est ce que le tribunal a léegi nag bu fekkee yéen yéen a mën tribunal wala yéen tribunal bu waxee ngeen gome ko effacé dinañ ci xam dana génn leen kër jàmbur ñàkk ngeen jom. d'accord waaw loolu yëpp moom lay euh, mais nag si je suis venue aujourd'hui la seule raison c'est que j'ai été expulsée ay huissiers ñoo ñëw génne samay bagages ci mbedd mi. mais loolu vous voilà et j'ai des enfants en bas Il va le faire, non il attend juste qu'on qu'on termine avec ñun nag ñun nag ñun nag ku ñu bëgg a jaay doole ci suñu titre état de droit rek fi donc moom mi ñu jaay suñu kër. waaw maanaam xool si. en temps ñu dugal ko ñu dugal ko. mooy ordonnance waaw nee na mu xool mën naa am yor na ko biiram mu mi ngi nii délai passé na numéro beeg yooyu délai bi passé na depuis mois lañ may mayoon pour ñu génn ci kër gi les 10 mois sont passés ça fait 2 ans ça fait 2 ans qu'ils sont expulsés occupant sans droit ni titre looy nga naan yaa ngi wax mais si on est si on vend notre maison je vends je peux je vends la maison et si je vous le je suis capable de le faire le titre change de nom le nouveau propriétaire va vous sortir c'est notre plan B bu naree métti parce que notre titre nous appartient et j'ai la procuration de tous mes frères pour vendre la maison je la vends j'ai des clients devant moi dama koy jaay ki ko moom mooy ñëw génne leen Parce que je, je suis à bout, monsieur, monsieur, je suis... Ça fait sept ans que je supporte. Sept ans. Oui, grand. Écoutez, jaay rek jaay mooy solution.